ma sama doom ne sama yaay man ko sa doom la sa yaay hmm. sama yaay bi sa morom commencé di ok loolu la wax. loolu la mu wax. bambaali tamit damay wax ak moom ci benn côté bi gis nga bambaali doom xamoo lu muy jariñ bu fekkee yaa ñam xale bi yaa ko laal. acide kenn yow yaa ko laal parce que ba ngeen di laalante dafa neex dëgg dañ koy wax bu fekkee xale bi yaa ko jur bul xool ci Tida mii man xam naa ne Tida jubul te seq naag ay góor avant muy seq ak mais loolu lépp bu mu la intéressé sa yoon newu ci li nga war a xool mooy sa doom parce que deret dafa fort loolu moom mooy dëgg bi deret daa fort xamoo sa doom lan lay doon mën na doon ministre man na doon footballkat mën na doon ma gardekatu magasin mën na doon jambukatu karat yàlla rek mooy teral nit mooy def lu ne mais mën nga ci am avenir deret daa fort jëlal sa doom nga téye ko nga jàpp sa doom ñu bëri ñu ngi wax yaakaar ne Wally Ballago Seck may wax wala Fami Faramari déedéet man du ma naafiq Tida bu ma doon naafiq chaque jour dama lay taf di la saaga yow rek laay xas man amul ku may woo naan ma lu tax ngay xas diw. waaw. ba may merci beaucoup. ba ngay sa jaara ñëwal. waaw. dama tëdd bu guddi sama biir sama yaay. ne ko yaay man ne sama biir bi day métti mu ne ma tëddal ba suba instant bi guddi na ñu tëdd ba fajar bi ñu dem hôpital. waaw. fa la ñu yendu. Mhm. fa la yendu bu dimanche ba lundi bi Adama mënuma am doom. Mhm. yaa ngi dégg. waaw ma am doom. sage-femme bi ne sama yaay sa doom bi nañ ko génn dañ ma koy dama koy génne hôpital bi parce que xale la. Mhm. kii mënul accoucher normal il faut ñu génne ko sama yaay ne ko instant yi boo leen ko génnee sa paasu taxi amuñu ko. Hmm. dimbali leen ma rek ngir yàlla ngeen fexe ba mu am doom ci jàmm. sama yaay waxal sage-femme waxal sage-femme yi Adamo ñu jël ay ciseaux di ma xotti mel ni kuy xotti morso. Hmm, loolu de eh, instant yi may noonu maa ngi xoolal maa ngi yuuxu ci kaw naan sama yaay su ma deewee bambaali bu mu taxaw sama dëkk. ci salle d'accouchement Mm-hmm. maa ngi yokku naan sama yaay su ma deewee bambaali bu mu taxaw sama dëj bu ma deewee bambaali bu àdduna bu mu ñëw di jël sama doom mm-hmm. ne sama yaay àdduna bu mu neex ba nga jël bambaali mu ñëw jox xool ci sama doom mm-hmm. ñu jël ciseau di ma xottate di ma xottate ba ni ma amee doom ma pare war a fay hôpital bi yoruma lu ma fay hôpital bi ñu ne dañuy téye sama doom man ñu bàyyi ma ma dem sama copine bi moo mujjee fayal hôpital bi waaw loolu de baaxul. loolu moom rafetul. waaw bambaali daal li ma lay conseil man maa ngi numéro am dinaa ko woo wax dëgg yàlla saa yi ma ko woowee mu jël ma ba problème bi amee man maa ko bind ne ko bul génn maa ko woo ko bul génn bul def interview bul def dara loolu man maa ko wax barki Serigne Babacar si mi may dégg. man su ma ko woowee dinaa ko woo ko frère mu ne ma ah ma ne ko bu fekkee doom ji sa doom ji reconnaître la ko waxuma nag yaa ëmbal mais nuroo génn waaw. nëroo ngeen jéemal fexe mu am ay kayit mais yow tamit def nga erreur lii la dal nii xanaa du la dalati xanaa dootoo yaatalati kenn ah Tida yow laay waxal de Tida yaa ngi may dégg dama ne la li la dal xanaa dootu la dalati dama bëgg nga ne ma déedéet du ma ko defati parce que lii du lu baax wala dan ka kaa bëgg a très bien loolu laa bëgg a dégg nag mais boo nee tekk damay damay yaakaar ne yow joxe ko dalay neex faaw nga may tontu. ñaanu ma ko waaw kay bu mu la dalati man dinaa woo Bambaly sekk wax ak moom léegi fu ma bëgg nga ñëwee man réaction famille Bambaly yaayam papaam Mapenda Seck sekk Seck sekk ak kan nga dem ci kan ak kan ak kan nga dem parce que ñi ma woone ma déclaré nga doom ji bëri na ci ñoom. sama ci sa yaay nga njëkk dem. waaw. bu demee ci ne ko man de xam nga lan moom ma fi andi dafa am lu ko dal te damaa gis sa sa deret sama kër. waaw sa deret laa gis sama kër. Bambaali dafa am doom ak Tida. waaw yaay ji ne ko man samay ay doomi góor laa yor xale jigéen ñi ñoo leen fekk ci sama doom taxawaalu ñu demuñu fenn. Mm-hmm. yaay ji loolu la tontu sama yaay sama yaay ne ko bu soobee yàlla. dootoo ma gisati sa kër dinaa toog te sama sët. ok bu ñu si kër yaaya bambaani. man ak sama man ak ma gàdduwaat sama doom. man ak sama yaay dem ba ci kër benn magu bambaani seeg. Ah. benn doomu baay bu jigéen. Hmm. bu ñu yeggee kooku dafa xool xale bi na sama yaay jarul ngay wax ñun suñu deret buñ ko gisee dañ koy xam. merci Ndiaye. Hmm. xale bii ñu gis ni suñu deret la. loolu doomu baay bambaali bi wax sama yaay xale bi ñu gis nii suñu deret la uh-huh. bambaali sekk moo ko jur daru sa ngay laa koy tuddee moom moo koy tudd nee tuddee ko yaay bambaali te xale bi yaay bambaali lañ ko naroon tuddee ok léegi ba nga jógee ci yaayu bambaali mu tontu la loolu Ousmane Seck kan moo seeti Ousmane sekk parce que Ousmane Seck nee na ñëw ngeen fa Seck à personne. waaw wan ko foto xale mu ne ma kii Cheikh Mbacke ko jur dinaa wax ak moom. mu ne ko Bambaali moo ko jur. Bambaali moo ko jur dinaa wax ak moom ok léegi euh, léegi euh, yaayu Bambaali moom réaction am noonu la ak papam le non papam réagir na wala réagiragul ba tey waxagul dara. waaw ma fenn Seck dem man mii dem naa bu foofu gàddu sama doom yóbbu. ma ne ko papa ba mu ne ma man ne ko sa doom daf ma am moom doom. waaw ki ngay gis ni sa sët la. waaw man ko ki ngay gis ni mu ne ma naam man ko sa sët la. waaw mu ne ma d'accord dinaa wax ak moom may dem mu yëkkati xaalis jox ma ne ma am joxal sama sët bi mu dem dinaa wax ak Cheikh Mbacke. ok euh, léegi Tida. Euh, bu loolu jàllee ci famille beeg yooyu léegi ñu ñëw ci li nga xamante si ni moom mooy ba doom ji juddoo lan moo tax doom ji nga abandé ko daal deux mois jox ko kële mu yor ko ba mu am ni muy amee quatre maanaam lu waral loolu situation la woon wala dangaa tolloon ci jafe-jafe. xale bi ko musuma ko abandonné. waaw mais dama ne la lu tax nga woon ko parce que ñooñu ñoo ko yor ba ni muy amee quatre léegi loolu nag. lan lan moo waraloon loolu maanaam lan moo waraloon maanaam nga ba nga jël sa doom yow nga jur ko nga joxe ko feneen yaa ngi dégg. situation aussi ci la bokk. situation ci la bokkoon moo tax nga def loolu. ba pare xale bi. ba xale bi xale bi nu bu commencé xàmmaliku si lay commencé di ma wax yóbbu ma sama papa Bambaali yóbbu ma sama papa Bambaali tabaski bi passé bi xale bi añu. lekkul naanu dafa doon jooy naan yóbbu ma sama papa yóbbu ma sama papa. mais nan lay xale bi de waxee yóbbu ma sama papa bàmbaali te xamul kuy bàmbaali. jamono jii moom day dégg bambaali rek ci internet bi xanaa kañ la doon wax yóbbu ma sama papa bambaali. ah. la doon wax yóbbu ma sama papa bambaali. yóbbu ma sama papa bambaali xale bi daf doon jooy lekkul. ah xale bi daf doon jooy lekkul. kon da xale bi yàlla may na ko. xoolal yóbbu ma sama papa bambaali yóbbu ma sama papa bambaali papa ji bu fekkee day wax dëgg ma message ko si saa si. ma woo ko téléphone jëlu woo ko jëlu woo ko jëlu ma message ko. ma ne mm. ko man soxla ma wax a yow soo doom moo la bëgg a gis moo bëgg wax ak yow ngir yàlla wuyu ma nga décroché ko nga wax xale bi même bu fekkee une minute sax nga wax ak moom parce que. ci car rapide fay fukki dërëm fay ma fukki dërëm fay fukki dërëm si car rapide bi moom laa gisoon. ba may dem accouché ni sax yéeguma taxi xam nga si lan laa yéeg car rapide fay fukki dërëm kii accouché yéeg car rapide. Ah, de mosuma ko gis. ok léegi sa yaay man dinaa ko comprendre ndax ci yaay ju nekk da ngay jéem a défendre sa doom yaa ngi dégg parce que moom yow la am dalay defendre yaa ngi dégg mais du woon respect ci moom mu génnee saaga ndey yooyu parce que man wax naa ba bàyyi te saaga wu ko loolu baaxul parce que day wàññi dignitéem bu waxee nit saaga rek ah mën nañ koo jaare ne ko kooba la waaw noonu mais dama lay wax loolu baaxul ci moom aadama bu saaga ñëpp da naan man non dama ndànk rek ma la man bu ma saagaa ñëpp da naan ah Adamo de tàmm na ko ñoom xam nañ ko ci lii day saaga rek sa yaay bu saagaa ñu ko amul kalaas dafa ñàkk fayda waaw kay. durant sama ëmb yëpp moom moo doon jënd garab yi. may dem hôpital nii bi su ma yeggee su may dem hôpital moo yëkkati jox ma ma fay aller retour dem hôpital jël car rapide dem jëlal car rapide ñëw. ok mais yow ci biir ëmb bi ba ni neuf mois yi mawee nan nga ko doon dundee situation bi. metti mais yow premier jour ba nga demee xam ne yow da ngaa ëmb bis boobu ñëw nga ci bàmbaali nga wax ko ko waxuma ba nga amee doom de. merci premier jour. parce que boo dee leeral côté boobu moo ëpp importance. premier jour wax nañ ko wax nañ ko ëmb bi. waaw mu du moom. mu toogaa deux jours. ngi dégg mu toogaa deux jours. ma woo ko téléphone mu ne ma fekk ma noo faa bu fekkee mu ngi may dégg terminus 34. am na benn baa bu nekk foofu nga xam ne man a moom tàmm nañ foto moom bu fekkee mu mooy may dégg ñu toog foofu noonu mu ne ma man duma daw samay responsabilité tey duma daw samay responsabilité suba duma la ne nga dindi ko duma la ne nga téye ko waaw duma la wax dindi a bi duma la ne nga téye ko waaw mais lu ma lay wax wax wax wax mooy man duma daw samay responsabilité waaw ok euh, léegi benn demande bi dinaa la ko laaj euh, jaraaf génn na mu wax benn affaire dama la koy tegal ndax yónnee na ma message moom naan ma bu yàggee nit ñi dana la kii dana la laa ma ne ko déedéet jaraaf man dëgg rek laay wax man fu ma fekk dëgg dama koy analyser wax ko am na benn interview bu mu def Dakar Buzz léegi nag li mu da ngay déglu ma tegal la li mu wax yow nga divagal mel loolu déglul bu baax. daan yónni ay. xam na ma bu baax moom ay copine jël nañu ba taay. daan jël livraison di indi sangare yi waaw man dañ ma yónni rek man sama liggéey yooyu laa woon. moom su la leen xamante xam ko jox sama numéro mu jël sama numéro. moom ak ay copine nag ñoo daan jël jël euh, bu dee rencontre entre copine la nekk. waaw mm-hmm. bu ma koy xam moom xam ko fréquenté ko. ba pare bu muy metti laa ko xam. boobu bu muy metti laa ko xam boobu amul dara laa ko xam Mm. sànq dama ko laaj benn question boo xam ne sénégalais yëpp dañ koy laaj mooy test ADN bi ñuy wax pour xam na xale bi bàmbaale baayam wala du baayam test boobu ana mu tiida maa test bi. na ma yàlla rey tiida looy wax ni. ama sa yaay. ok ne ko ñoo léegi nag yéen affaire de test bi. saa non ma Bamba reconnaître reconnaître Bamba lu mu reconnaître ah ba Adamo gars da yàggee gars dañ la bi de. dégg dégluwaa leen vocal bi pour deuxième fois après ñu bàyyi Tida mu wax xam nga lii ñi ma koy wax parce que li ma retourné waat tax mais man damay defal yàlla te yàlla.